wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidna muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahabatihi ajmain radiallahu an xatmi tijaani sayidi wa mawla abi abbas sayidi ahmad ibnu muhammad tijaani radiallahu anhu وعن خليفته على الإطلاق صاحب الفائدة التجارية سيدي أبي إسحاق شيخي شيخ إبراهيم يس أو شيخنا الشيخ إبراهيم يس رضي الله عنه بكي كوسي سرين بي شيخ إبراهيم ابن الشيخ محمد المامون ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi teew fii ak ñi nga xam ne teewuñ fi ak mbooleem magi Kossy yi di ci jiital Cheikh Baye mii doomi Baye Ibra Fall ak ay la yi nga xam ne yépp ñoo bokkoon nekk fii ak sëriñ bi ji Kossy di nuyu mboolem ñi teew ci tànt bi fii Cheikh bi mu gàmmoo ba pare mënoon naa wax rekk ñaan ñu tasaaroo waaye ci tegginam ak ci mbaaxam rekk ci la xalaate jàmbu xeebu bi waaye man bariwuma sax lu may wax ci daje mantam li ma utiliser mooy ndigal li mu wax ne naa ko waxee moom laa jël moo tax ma bëgg cee sànni ay kàddu kàddu yi ma ci bëgg a sànni nag dafay laal ñaari point ba ñett yoo xam ne fu ma dem dama ko fa wax walla fu ñu ma joxee kàddu bopp benn bi mooy li nga xam ne dafa aju ci ñun muy ñun taalibe yi ak li aju ci taalibe te yaakaar naa bu ma ci waxee itam ci fii ci Kossy defe naa ñu bari dinañ xam ni tax ma wax ci ndax Kossy gi góor yi ngeen di dégg ci faydu bi yépp fii lañ leen defar kon bu ma waxee ci mbiri taalibe ci biir Kossy war naa cee wax damay fàttaliku rek benn histoire boo xam ne boobu maa ngi nekk xale waaye li may nekk nekk xale maa ngi takk wax yi nga xam ne Baye Ibra Fall wax na ko fii suma yaay fi ànd ñëw ñuy dem ci ci néeg baay bi fële di ma wan ne ma fii mooy néeg maama su jànq bi fii mooy jamono bu yàgg ñu toog tuuti rek Baye Ibra Fall ñëw ci néeg bi bi mu ñëwee na ko dañ maa wax ne ma yaa ngi moo tax ma ñëw sama yaay na ko bàyyi yow mënoon ngaa toog bàyyi ma ñëw mu ne ko déedéet li ma yëkkati mooy damaa ñëw ngir xeentu li ma daan xeeñ fii ci waxam ba mu pare muy nettali suma yaay suñ benn maam boo xam ne fii lañ ko suul waa yaakaar naa bàmmeelam bi léegi daf ñëw réer sëñ Maamun sax daan na wax ne bàyyi ko santoon ko bàyyi ko santoon ne ko na ko defar ne ko mooy yaay yaafat jaañ nag daan takk guddi daf daan leer guddi ne ko de fii ñëw di fi wax sa soxla lu fa waaye ñaan yàlla yàlla nangu ko mm-hmm. dëgg la bàyyi moom lu mu wax noonu la mu dem jàngi ba mu ñëwee bàmmeel bi faaru xamatuñ waaye loolu dafa sori ñu gën koo jege rek jaww ji képp koo xam ne yaa ngi fi nokki wala képp koo xam ne ñu ngi lay intisaab di la askan ci baay nga am benn soxla ci àddina nga dogu ci soxla bi te soxla bi amul seetaatal sa bopp waaye jaww koo si yépp mu baarak lu fi waay wax rek ndax bàyyi wax naa ñenn ne leen taxaw na fii di tudd yàlla ba li ko wër li wër koo si lépp suuf ak garab lépp àndandoo di tudd yàlla te loolu du caaxaan dafa fekk nag nit ñi fu ñu yem rek seen yitte moo leen fa yemloo dëgg la bu ma koy misaal ci misaal mu gàtt bàyyi moteur yi mu yore ak vitesse bi mu doon daw ñun mënuñu woon a ànd ak moom loolu rek moo indi coow li yëpp waaye dafa jot ñi seetaat suñ bopp kenn ku nekk seetaat sa diggante ak sa borom te itam dañuy fàtte benn majaal boo xam ne majaal bu am solo mooy dañoo war di ñaanal yàlla faydu bi taalibi bàyyi yi déggoo nekk seen biir ak xol xol yi dimbalewante ak jàppalewante buñ ko defoon rek di ci ñaan yàlla kenn ku nekk rek yàlla dana ñu boole ci ñi nga xam ne danañ fekkee njëriñ loolu te fekkee nañ ko sax ba pare xanaa kay njëriñ lu ko ëpp lañuy ñuy wax loolu mooy li nga xam ne dama koy jëmbale mu jëm ci taalibe yi keroog xis sa boobu sëñ Ibra Baye Ibra Fall wax na suma yaay ci néeg bi ne ko néeg bii de am na jamono boo xam ne sëriñ bi daf ñoo nettali benn nettali daf ñoo wax nañu tubaab bi daf fee war a ñëw seet si ma dama bëgg nag bu subaa yéen ñépp ngeen sol yére yi nga xam ne moom ngeen gën a fonk ngeen ñëw génn ci biti am ku ne ah waaw bàyyi mu ne yére yi ñu gën a fonk ñun amuñ lu dul suñu yére yi ñuy bayati mu ne bàyyi Ibra Fall ne ko yow daf na yére yu ñu gën a fonk rek nañ dem ñun ñu sol suñu yére yi rek mu ne ci suba bi tubaab bi di ñëw mu ne bañ corné boobu kalash ak saret yi lañ yore biñ corné mu ne bàyyi ñoom ñu génn ñëw taxaw ci bunt bi bàyyi génn xool leen ne leen ah yéen ma wax leen sol yére yi nga xam ne moom ngeen gën a fonk mu ne ñoom ñëpp ñu ne ñuy noppi mu ne bàyyi bàyyi na leen baax na bi gan gi ñëwee ba bàyyi yeewee ko mu dem mu ne ñu dugg ci biir néeg bi mu ne keroog néeg bi ñoom feesuñ néeg bi mu ne bàyyi ne dégg naa li ngeen wax dangeen a wax ne dangeen ngeen a la da wax ne amu leen lu ngeen lekk dangeen wax ne amu leen alal dangeen ngeen a wax ne amu dara waaye ku fen wax na ma ne ma bése ngi ñëw ñépp yéene leen leen ëpp yére da ngeen oddu yéen seen mbubb yi ba oddu seen tabax yi bés a ñëw li gën a neex ci àddina yéen a koy tiim di ko lekk bés a ngi ñëw da ngeen bëri alal lool sëñ Maamun tegeen ci lenn nañu bàyyi ne woon nañu danañ dox bay ñëw Medina di fi jël si alal comme ni ñu jëlee màkk alal bàyyi ma woon nii fee seede la ci te mayante ko anil hawa lu wax mukk ci bànneexi bakkanam xaw ma ko man xaw ma lu ma sa wax loo xam ne nee na bàyyee ko wax ñu ñu topp ko tu gisuñ ko loolu Kossy gii la ko yàlla jagle fii la bàyyi mooñee mbooleem kilifa yi mbooleem kilifa yi nga xam ne yéen leen di dégg fii lañ leen defaree 75 bu ngeen dégloo discours boobu bàyyi di wax ci kaset bi da ngeen dégg mu ne bàyyi nee na gis na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay yoon yonent bi di ko wax ne ko dellu leen ko si mu ne ba mu foog ne dellu gi sax dellooy jëmm la pour ñu toxuwaat jóge foofu Medina ñëw ko si nee nag gannaaw gi bi ñu ko gisee ay yoon bi mu demee ba mu yàgg mu jàngat ba mu jàngatee la ne li ko yonent bi wax mooy ngeen dellu jikko ya nga xam ne moo nekkoon ci ko si loolu lu am solo dañ ko war di bàyyi xel dañ yokk suñu itte ñun fu ñu em rek ñoo fa yemal suñu bopp beneen bunt bi nga xam ne bëgg naa cee wax mooy dañu jëm ci ay élection na ci ñépp dem ak sago ñi xam ne ñun ñooy tànn suñ ndawi réew yi ñuy représenté ci assemblée bi ñu bañ koo tànnee tànn nu ñu neexee ñu tànn ko ci dal ak ci yar gis nga réew mii réew yi ñuy dend ak yëpp am nañ problème tàkk na ba mu des réew mi xam nga lu ko waral lan la man réew yi yëpp dama koo def Afrique gi amul benn réew boo xam ne tegu ma fa sama tànk xaw ma nit ñi fa nekk lañuy ñuy dund ak la ñuy wax ak nañuy ñuy doxale réew yooyu boo demee kenn ku nekk bopp sa bopp la famille famille la xeet xeet la dama gis nag loo xam ne mi ngi am nañu ay bëgg-bëgg dëgg la amuñ liggéey ñu ngi sonn seen yaay yi ñu ngi soxla seen baay yaa ngi soxla ñi ngi bëgg lu nekk waaye damay wax bët bu set ni ñun nguur gi noppaluñ ñu bu ñu noppaloon dañuy ñëw dem investir ci mbay mi dimbale baykat yi def alal ci mbay mi ñëpp delluwaat ci mbay mi su boobaa dootoo gis kenn kuy taxaw Dakar bi ambulant ñëpp danañ dem ci mbay mi waaye dellu gi dellu jus yi maanaam tuuti lañ delloo ci mbay mi te amul lenn luy xew fii nii ci biir réew mi lu dul ne bu boo yeewoo lenn rek lu nekk mën naa manqué ba mu des luñ bay luñ bay rek moom la nit ñi soxla maa taxaw fii ci Kossy nag di jiital bàyyi maamoon mii di ñaan yàlla ci martabaam ak martaba baayam ak martaba maamam ak martaba ñi nga xam ne ñoo nekk fii Kossy ak jaww Kossy ji nga xam ne fi la yàlla defaree lépp teraanga bépp bu ñu am ñun yàlla fii lañu ko mayee maa ngi ñaan yàlla yàlla gindi ñi nga xam ne ñoo jiitu gindi ñi nga xam ne ñooy ut ba duñ dugal réew mi ci problème pétrole yi ñuy wax ak yi ñuy wax réew yi ko am amuñ jàmm li ko waral mooy dañoo jël nit ñi puus leen ci màdd kese fàtte maanaam ñun nag ñun taalibe bàyyi wala boog njort naa boog ci ne kenn laa ci biir taalibe bàyyi ñun taalibe bàyyi lépp lu ñuy def ci fii ci biir senegal rek war nañ cee sóoraale bàyyi ak ni mu ko defee pour ñi bañ a juum ndax li sëriñ bi li ñu sëriñ bi teketal bàyyi ko fi buñ ci toppee rek kenn ci ñun du loru sëñ Mamoun dafa daan wax naa ne yàlla yàlla nangu ñaani bàyyi moom fàtte na sax boppam ne yàlla na yàlla nangu ñaan yi bàyyi ma ne ko ah sëñ bi lu tax ngay ñaan li waxtu waa ngi dégg nga koy bamtu waxtu mu ne ma bàyyi bu yàlla nangoo ñaan mi ñëpp nekk ma ne ko ah mu ne ma waaw benn bés mu ne ma kaay ibil Kanzu loolu yaay nga jàngal di jàng fu ñu àgg rek mu ne dégg ku ñaan ñaan bi ma ne ko déedéet waaye loolu li koy dëggal mooy damaa dem Mauritanie fekk fa benn mbooloo moo xam ne ñu ngi toog duñu ay taalibe sax am ku ci nekk ci biir di jàng Kanzul Awliyaa benn naar a ngi sëgg di dégloo rek naar bi dem ba mu yàgg naar bi ne ko ah man de kii wax lii xaw ma ko waaye xam na ni ñuy ñaanee boromam de maa ngi toog kon alhamdulilahi rabbil alamin bàyyi man maa ngi lay gërëm bu baax yow xam nga ne man heure bu ma amee soxla boo xam ne jaaxle naa boo mu wëree rek da nga ma fekk ci néeg baay bi ñëw naa fi ay yoon yoon yoon danaa fiy ñëw mën naa am xaj na du ma dugg ci kër yi euh, waaye danaa dem ci néeg ba ndànk dugg fa def loolu nga xam ne moom lañu fi àndoon ak sëriñ bi ci alxemes te tey alxemes yaakaar na bokk na ci li nga xam ne gën na maa sawarloo pour ma ñëw fii teew ci sa jotaay bi parce que man sa jotaay bi man yow mbëggeel sa mbëggeel ci Baye ak ni nga xëree ci Baye fépp fu ma mën a nekk ci biir senegal xanaa ma ñàkk mën a dem waaye bu ma la déggee ci jotaay boo xam ne jege te mu mën caa dem dama cay dem te loolu yàgg na xam naa ko ci yow ñi jàng étudiant nekk Xaahira man ak yow bu guddi jotee ñuy doxantu di waxtaan di waxtaan ci Baye di waxtaan ci Medina niñ bëgg mu mel dana ñëw de waaye ñun ñoo war a góorgóorlu fexe mu ñëw ci suñ jàmm ndax jamono ju xaaruñu jamono ju xaaruñu bàyyi lim ñaan yëpp dana ñëw waaye ñun ñoo war a fexe mu ñëw ci suñu jamono maanaam ñaan yàlla di ñaan état yi seen gëmm bi ñu gëmm ci saalum ak baay ak njabooti baay bi yàlla yàlla xippi seen bët bañ xool baay yàlla yàlla delloo leen bañ dimbale baay ndax buñ dimbalee baay dimbale réew mi yépp baay mi ngi dimbale réew mi de gàmm gu jot internationaux yi dañuy dugg si fii nii fu nekk lañu ñu jógee ay téeméeri téeméeri junne ku ci ñëw fii lu gën a néew loo indaale dana mat 500 dollars kon économie Sénégal yu bàyyi mi ngi ciy participer jot na nag ñi delloo bàyyi cëram ñun devis yooyu xam nañ bu baax te ñooñu buñ ko indee duñ ko delloowaat fii lañ koy bàyyi kon jot nañu jublu Medina Baye ak li aju ci Baye. maa ngi wax ñi toog ci jotaay bi te ñeent fukki nit ñeent fukki jullit fépp fuñ dajee wala yàlla ngi seen biir taalibi bàyyi moom fépp fuñ dajee ay aqtaabi aqtaab ñoo nekk seen biir waxuma ko bàyyee ko wax bàyyi moo ne fiiha rijalun zawquhum kal xaatimi am na ñoo xam ne góor yoo xam ne seen zawq ci yàlla ak seen maqaama ci yàlla àgg na ci ibnul arabi al xaatimi bàyyi moo ko wax nee na ci biir mbooloo mi xaw ma la waaye maa ngi ñaan ñépp ñi teewal seen xol seetaat seen digganteeg yàlla jottali ko ci baay mii dereti baay bii toog nga xam ne wóor na ma man mbëggeelam ci baay moo ko diri ba indi ko Kossy ndax ku toog ñuy miiraas sa baay kër yee nekk Kaolack kër yee nekk Dakar nga tànn kër bi nekk Kossy ñépp di ko waxee kon kii xam na moom li nekk biir Kossy ñun ñii nag suñu yaay wax nañu lu nekk ci biir Kossy xam naa moom loolu moom lay xentu sax moo tax mu jël jàmbu xeeb bi bii ne ko laajal àdd yeneen nañ joxe waaye maa ngi sukkandiku ci moom di wax la Mariam mintatul ba waxoon bàyyi ba ko bàyyi na ko ak binni nag ma damaanal nag ma warlul mu ne bàyyi na ko maa ngi warlu maa ngi lay warlul ci yow dégg nga damin tukka dikk maa ngi wax la Maryam min tutur ba waxoon li ma ñaanloo nii yépp yaa ma gën a xam ndax xam nga loo xam ne man xamuma ko gis nga loo xam ne man gisuma ko déey nañ la loo xam ne déewuñ ma ko waaye liñ ma déey liñ fi déey nit ñi ñépp ñu ngi koy jël di ko delluwaat teg ko ci sa loxo maa ngi ñaan yàlla ci barkeeb bakkan yi nga xam ne nokki lañ ci suuf sii defaroo ci suuf si ñoom ñëpp képp ko xam ne yaa ngi fi nga indi fi soxla yàlla na ko yàlla faj ci barke bi maa ngi ñaanal ñëpp di ñaanal mbooleem waa Kossy di leen ndokkeelati beneen yoon di leen ndokkeel ci ne góor yi taxaw ci biir fayda bi fu ñu mën a jugee Kossy gii lañ defaroo loolu rek doy na ndam si waaye waaye na ngeen yokk suñu itte yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu